Biram Yacine. waaw même ma ñëw rek Modou Lo ngi nii moo lay tontu. dama dégg taxaw ne moom moo la mën foofu ci séeréer. non lan nga ma wax ba ma ne la moo la lan nga ma wax. Modou Lo dafa am gëm-gëm ne lii ngay wax nii doo ko ñeme naa ko. ndax ñeme ngaa soog Modou. waaw dama ne dafa ne affronté Modou di man ñeme naa ko. waaw ma soog moromam ah mais non loolu moom dama koy jàppee waxu mbër rek quoi ah, um, lu ñuy war a wax lu ci ëpp wax nañ ko te daanaka soreetul le vingt quatre novembre c'est bientôt hmm. damay ñaan rek ni lépp muy wax bu bis baa na ko ñëw jëfee man loolu la yow tamit lépp looy wax ci bis baa na ko dëggal sa waay ñaanu ma la dara saraxu ma la dara bu dee hmm. jàmbaar mooy rayee bagg alquran sama baxan tele naa la ko wala Hmm. Modou Lo ban Siteu ngay xaar. ah non li muy wax rek mu ñëw dëggal quoi. Ah. loolu loolu ngeen da ngeen gis si eh. Birame Yacine yow Siteu bi ngeen bëgg a gis moom nga gis nii man yéen rek laay déglu amaa pare. Modou Lo laa laaj ban Siteu lay xaar. nee na ne moom li muy xaar mooy Siteu bii mu jàkkaar lool nii muy waxee Siteu jëfee noonu ci bés ba. waaw bu bis baan na ñëw rek. Eh, mais Fadam Fadam est-ce que du leen bàyyi ñoom ñaar ñu waxtaan tuuti caméra yi zoom ci ñoom ñu waxtaan parce que ñoom ñaar dañu war a waxtaan balaa ñu dellu ci plateau Lamine Samba Modou loo Siteu li muy wax boobu léegi nga ne toog croiser ses bras te yow yaa ma doon wax ni vraiment danga nam namoon affaire bi xaw a tàng mais da nga gis mu koy seral mais te da ko da ko tàngal jër Modou. Ah, wax la ko si wax la li muy wax yëpp la kenn mënul tontu <laughs> moo tax dama koy déglu rek ba mu pare. <laughs> maa ngi ñu ngi dégg ñu ñu ngi dégg. ñu ngi dégg bu baax c'est moo. ba dafa ma laaj ma ne ko li muy wax yëpp la kenn mënul tontu moo tax dama koy déglu ba mu pare rek. non li may wax kay xam nga ko sa waay parce que xama lan moo tax. parce que yow da nga jàpp ne yow sa jëmu bopp ndeysaan nit ku la rus rek da laa ragal non yaa ngi juum. wala nit ku la rus rek da laa bàyyi xel non non man gaañ man xooluma ci yow ñebe. wala déggoo li ma la wax man dama bëgg yow nga dugg ci ba mu jeex xamna yow waxo man jappalu ma la dara lo wax yow. man mosuma ci génn man jàppal naa la ko fukkam. non man ay jàppale daamu fi. wa jappal moy déglu lu ma la wax parce que yow ya ngi nan man luma gëna wax lan la fi wara wax. yow man lo wax dama la wara tontu yow ya wara wax ma tontu la signature bi neex suba gaay bu ñu xey xamne li combat la. Ah, combat la gay kenn waxatu ko. combat la mo dañu taxaw kon jeexal na kon dama bëgg nga waxal ma ñooñu noonu noonu di wax ñu noppi. ñoo ñan noonu. ah xanaa xanaa xanaa Biram Yaasin boobu toog sa wet. <laughs> Biram Yaasin dafa ñëw pour laaj. Eh, saa saa xanaa dafa am loo ko def. kan ñi dama leen interdit jaama gën yow ñi dama leen interdit moo tax ñu ñëw sa foofu. <laughs> ku ci ñëw fii man jogoon na loola. <laughs> Nah, nah, nah. bëre ak Modou kon bëre ak Modou Lo nga excité nii. <laughs> Modou Mbaye wuy Modou Modou Mbaye la wax. Modou mu ne. ani kon moom moom moom jàmm gën ba war fa interdit waate quoi. mais sport gën wax dëgg fa yàlla moom. fii moom ah kenn fii moom kenn kenn moomul monopole. yow du lay wax de. Modou man waxuma ak yow ba léegi man xam nga laa sëgg ak yow la 24 novembre man ak yow. mais dama la ay Biram Yaasin a Grand Ngatou Wata ku ci barke alxuraan say mbokk dinañ la laaj. waaw mais dama la dama la bu lépp weesoo sport la ñu def. tu as compris. yow eh, munoo man sportuma. man ah, sportuma de man damay xarit Badara yow nga naan may nii man ñii laay waxal waxuma ak yow. ah non non non mais dama dama leen toog di waxtaan. mën nañu waxtaan waaw mais man sportuma nag man nekkuma ci sport maa ngi ci beneen dimension. man xarit Badara laa adama parce que yow man yow yow yow man nit ñi lu ñuy wax daf ma man yow gars man xam ne man combino man man ñaanuma la dara bi combat bi taxawé ba légui wallahi wallahi su dé dégg naa ko yal naa suma nday bi mu jur mané la dégg am mëno parce que yow man kafuma man fawuma man dëggantaan njaay lay dundu, té li may wax ni barké alcorane bu bis di ngeen ci teg sen bët dama koy jëf mané mëno fexé ba ñuy wax reporter ñëpp di wax lu la wala lu neex waxuma la lu ma neex la ñuy wax de dama laa ne man ñooñu laa la wax dama la ne yow li ma wax mënoo ci dara ñii dama leen tuddee jàmm gën mais li tax nga bëgg ñëw nga nga bëgg leen interdit jàmm gën waaw ñii duñu àndoon ak état sax duñu fi dugg eh? ah kon de kon de rëy na waaye ma bàyyi leen ngeen seere kon sita sita sita sita yaa ngi yaay signature bi neex na signature bi ñi ngi mais excite ni nga excité nii est-ce que ci biir géew bi boo defee noonu Modou du am du jaar ak yow fi mu a ak gars yi. man du man dama bëgg ngeen wax wax waxi gars yooyu nga laa bëgg nga jël ko nga teg ko fële. kii hmm. Baay Faal bi la. hey góor yàlla bi man li may def dama koy natt ba mu jot ma def ko. Hmm. gaan Fall yow dogo bañ nekk xale ba léegi ñu ngi xamante. Hmm. mosuñu wax lu ñàkk fayda mosuñu wax caaxaan. gaan man li may wax nii xaar leen ma le 24 dama koy jëf. Modou Mbaye. na la waay sa waay nee na moom day ñëw kon dañuy daje. Modou a dama bëgg laaj Fadam Fadam dafay commencé guddi Fadam dafay commencé guddi dafa am timing ku leen topp ngeen yóbbu leen trois du matin face to face bi neex na mais leen topp affaire bi

Siteu it nit ku baax la te la ma ma ma maa ngi waaw maa ngi ñëw maa ngi non man maay wax non man maay wax non lim non li may wax li ma wax man la engagé. non non c'est que c'est que maa ngi ñëw le mot ñu ñaan Siteu. balaa ngay mbéj balaa ngay ñun suñu liberté dañ ko war a commander Siteu maa ngi ñëw. tout jàmm gën Siteu moo ko. waa maa ngi ñëw dëgg la wax maa ngi ñëw mais li may wax man la engagé man je crois li ma wax man la engagé. Ah, yow so paree après yow nga tontu sa tontu bop man li wax man la engager dama né Siteu nit ku bax la Siteu Baay Faal la comme ni modlo Lo nit ku bax mais nañu japp ni muy Bour muy Fadam suñu ay natango lañu ñoo xamanteni ni la dañuy def sen liggéey comme ni ñu doon comme ñun ni ñu défé suñu liggéey ñu ñaan Siteu rek loolu ngir yàlla mu rectifier loolu parce que moom nit ku baax la mu rectifier loolu rek parce que ta sa wax dafa am solo ci réew mi dafa mel ni waxi président Ousmane Sonko soo waxee nit ñi dañ lay déglu loolu lañ lay ñaan rek nga rectifier wax boobu te Serigne Bamba rek a tax nga jéggale te jëllale loolu personnel man la engagé man personnellement non non non non Lamine man. je ne parle pas à ton nom. non non mais grave. s'il vous plaît. mais man may wax man. defuñu ko waxuñu ko ba ñaan territoire jàmm gën. wa ma illa bima alimna lañu nek dañ ci wax suñu xalaat muy man muy du momelu kenn. lam fa am la fa am ay am.

Mm-hmm. day wax xalaatam. Mm-hmm. waaye ñun tamit suñu xalaat lañ fi jàmm yow jaara jàmm gën la nga xool niñ lay def. yow ñëwal rek yow. mais mais mais mais bu fekkente ne. léegi buur buur buur buur Père Lamine Samba intervention yooyu yëpp am na solo mais yaakaar naa ni yaakaar naa ne du Siteu moom mooy tere buur wala kii feneen. ñu jàll ñu dem ci beneen. pour muñ ko ne di wax ñu dem ci beneen point le temps plateau bi. calme waa plateau bi waa régie. xamal leen buur géwél ni li muy wax ni yëpp instant yi jàllul donc na calme. na calme riche bala may del soit ci calmer len plateau bi ñu mais en attendant ku ne xamné ni dafa am un sponsor Modou mbay l'événement dafa am un beaucoup de sponsors Modou Lo mu ngi sol ni ngeen gis Modou Lo sol ni mm-hmm. T Flecha. T Flecha la sol mais Modou est ce que ce Modou nu mu sekkee ba T Flecha bi dugg ni wa T Flecha bi sax gisuñu ko machallah allah. Modou T la sol. y' a d'autres sponsors de l'événement. mais s'il vous plaît calmez la régie après ñu del soit ci ñoom mais y' a un partenaire buñ togal ce partenaire-là accompagne Jambar Production en tant que sponsor dans cet événement-là. Je vous dis, mon bëgg libéré Eric Favre Nous bëgg ko jox Eric qu'est-ce que vous préparez par rapport à l'événement du 24 novembre avec Jambar Production est-ce que vous pouvez donner deux mots par rapport à cet événement oui bon tout d'abord bonsoir à tous bonsoir Modelo bonsoir Citeux on est euh, à J-10, mm. ça va être un, numéro quand même euh, particulier et spécial, mm. puisque pour Citeux, euh, c'est éventuellement la couronne pour la première fois de sa carrière. Mm. Et puis pour euh, Modelo, si euh, il gagne, ça sera la quatrième fois, si j'ai bien compris. Mhm. Donc c'est historique. Mhm. Donc euh, pour un événement de cette de cette ampleur, mhm. il fallait préparer un, setup, comme on dit, d'un très haut niveau pour pouvoir marquer un petit peu les esprits des, Sénégalais et marquer dans, dans l'histoire de, la lutte ce combat, ce roi des arènes, mm. qui aura lieu donc le, 24 novembre. Mm. Donc vous verrez qu'il y aura de l'entrée jusqu'au milieu des arènes, il y aura un aménagement euh, vraiment à la, hauteur de, cet enjeu. Mm. Il y aura euh, la présence de NK qui, euh, entre le dernier face-to-face qu'on a fait lors du festival sport, il y a qui sera diffusé. Il y aura un show bah, à la hauteur comme c'est le faire comme sur le faire les équipes de Eric Favre Show Event avec, euh, avec Bill et toutes ces, toutes ces équipes. Mm. Donc, on a préparé quelque chose de, très bien. Je, remercie en tous les cas le, promoteur euh, Jambar et, ses équipes de Mansour donc, euh, et ses équipes de leur, de leur confiance. Mm. Et on va tout faire pour pouvoir honorer Modelo et Citeux et tous leurs fans pour qu'on ait un show à la hauteur de celui-ci, tout simplement. Donc on fait notre job, on le fait le mieux possible, on le fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Et je te remercie, euh, Ibrahima, qui euh, chaque jour, tu m'inities un peu plus à la, à la lutte, mhm. euh, sur des heures tardives, <laughs> <laughs> comme ça. Et euh, je souhaite bonne chance à, vous tous. Mhm. Merci encore de, votre confiance. Et, voilà. Et là, là, là, je pense que vous parlez pas assez des produits, vous parlez plus du partenariat avec Jambar sur l'événementiel. Parce que, gars, il y a un extraordinaire. L'Union jàmbaar da ciy liggéey ak incha allah ak Eric Favre pour ay écran lu xamante ne ci ay combat MMA yu mag a mag lañ ko doon gis dinañ ko gis fii ñu nar a ñëw stade nara dagg seen billet dinañ dund événement bu ñu musul dund ci cadre làmb en terme d' installation ñemewuñu sax dévoiler surprise bi leen bëgg woon mais jàppaleen leen ni. événement bu ñu def Ken mais Eric est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu des produits en tant que sponsor parce qu'aujourd'hui, la gamme Metapod et la gamme Eric Favre Nutrition on a vu que vous avez accompagné un athlète comme Reug est-ce que vous pouvez nous parler un peu des produits au niveau du Sénégal Oui bien sûr euh, tu sais au, lieu de parler on voit les résultats mhm. on, voit un Serpa qui est revenu avec euh, du monde de, kickboxing donc mhm. Tafsir est avec nous il est suivi